diggante entre ministre euh, Amadou Ba ak euh, axlu làmb tey daje bi noo ko jàngatee Pape. waaw rafetlu ko ndaxte daa am lu nu waxoon dafa am lu nu waxoon ca palais de la république. Uh-huh. président keroog ba munu dajeelee mu ne daal dinaa jël téeméeri million jox ko wala wala juróomi téeméeri million uh-huh. waaw mooy cinq cent millions. juróomi million uh-huh. yoo xamante ne dinaa ko jël jox ko waa làmb promoteur. promoteurs yi ñoo ko moom a ah, tey jii nag loolu lañ doon confirmer prolongation la woon mm-hmm. tey won leen ni nag nii lañ koy defee nii lañ koy defee nii lañ koy defee mm-hmm. képp koo xam ne promoteur nga tax liggéey nga lu tax ñu war la cay jox nga teg ko ci yoon mm-hmm. li ñuy bañ rek mooy xusma ñàpp bu jóg rek ñëw ni man promoteur la yow yow yow amoo dossier parce que li leer na mooy balaa ñu la koo jox da koy teg fi yoon c'est pas informel c'est du c'est du formel. da ngay am lépp nga ñëw ñu jox la mais problème bi nag mooy làmb dafa bari perte. Mhm. dama perte da cee bari de nan mooy tudde xam nga nag nit mën naa sincère ñëw ni la baax dinaa la fay. Mhm. ba dara desul lu dul fay mu jóg <laughs> ne la dama perte. waaw ah, bu boobaa lu leen mën a. mais CNG yan texte ak règlement ya ah. la war a teg ba nga xam te ne ku tëgg force nga fay. ah fond jub la fond jub balaa nga faa dem mm-hmm. waaw déggoo bu treize nee na sax mën nañu sax ca billet ya balaa nga génn stade bi nga fay ko am na ñu ne mën nañ ko mm-hmm. waaw ñu wax fond jub na ni nanu miin gisee yi nag mm-hmm. waaw bu làmb amee ñu ñëw toog bu ñu jotul lépp jot li ci des jot yenn yi loolu dina ci baax uh-huh. waaw per xaas bi génn saison bi tijji na combat yi taxaw naka nga ko kontaan ci saison yi taxaw nanu na mbër yi bëri parce que bi làmb amoon daaw bu continuer noonu làmb ji dina neex nag ba xale yi bar yàq nag xale yi buñ ko yàq waaw xale yi ñoom xeex ak histoire yàq làmb xamunu sport mbër mi nu àndal la nu xam dam ay bant dam ay bang toj fii sànn yooyu baaxul mm-hmm. ah, nit ñi dañuy jóge seeni kër ak seeni i problème nekk ci wala mbedd problème mu mbedd bi. Mhm. ñu indi ko ci biir arène bi. Mhm. loolu baaxul. tey doo gisee coow Modou ah, noonu la mag baa ngi noonu. combat royal la. Mhm. Ah, Lo bëgg naa conserver titre ah, bëgg naa nekk roi. mu war a neex rek. yaakaar Ama ñeme euh, ko sëkkatal jaaxal la. Ama da ngaa gis kum ragalul kenn non non daf ko soxla. noonu la Balla Gaye doon def yëkkini. waaw làmb noonu la ki gën a nekk xale mooy ëpp mooy ëpp arñe mhm. mooy ëpp rek l'essentiel mooy lan la fay fekk loolooy coow li. bu ñuy xaar ci combat boobu papa. boobu combat bu neex nag. vraiment combat bu neex la. Mhm. parce que mënee na nu nu ne. waa ñoom ñaar ñëpp mënee na nu nu ne. Mhm. te problème bi mooy est-ce que ëmm euh, Modou mën naa daan ëmm daan ama daan booy ñaa yooyu yooyu de. waaw waaye tamit bii mu nar daan ponkal yi <laughs> dafa met dafa nar a metti de. mais tey Ama Baldé li muy bëre dafa arrangé Modou Lo Modou Lo mbër bi dox ci kawam. te ah, Ama Baldé ko wax rek ni moo gën a yomb moo nangam nangam. Uh-huh. ah la ni mën naa mën naa ñëw bay dugg jaax def leneen uh-huh. làmb dafa bari feem. te Ama mën na jexe ci kaw mën na jexe ci mbot. Uh-huh. waaw ñaar yooyu moom mën na cee jexe ñu dóor nit mu daanu. laaw du daaneel la wala crochet daaneel la wala ñu mbot la nga daanu. nooy déggee tey yenn euh, jàngatkat yi ñu ne ama ah état bi pareegul ak non d' wu ma ci de d' ma ci làmb yow tam boobu bi ñu koy wax matoon na deux mois diggante bi ama defaru day defaru ama du dof ñi mën naa dem foofu ci biir làmb yi arène nationale googu nekk biir Pikine son premier combat. <laughs> ah ci biir Pikine ci depuis cinq ans mu war a bëreeg Modou Lo mu ñaan jàppal mun day ñëw noonu rek. ah. te mu ne mooy tooli maamam mu ne moom mooy selu bu ndaw nag lu ban pare mm-hmm. ñëw ci làmb ji bëre loolu lan ko sant laajunu ko leneen mm-hmm. na pare xam ni fii ñu toll moom amaa Baldé pare na pour bëre parce que Pikine lañ koy bëree tooli maamam la juróomi at a ngi nii bërewu fa ci diggante bi ñaata mbër fo bëre ci yu dëkk Pikine ah trois fois. ci diggante bi yow bëree góof fi te il faut amaa wannu li mu làq lépp lan la. Mhm. ah combat bi du combat caaxaanaa. Ah. Ah. Modou Lo aussi bi mu nekkee roi ba des arènes ba léegi bëriwul. Ah. Uh-huh. ah ba ñëpp kontaanatuñu sax ci ay roi des arènes nag yéen comme ku ni man man d'accord uma ci ay roi des arènes. non ban roi des arènes bu amaa daanay Modou Lo day nekk après léegi roi des arènes kon kuy kum daan bay nekk roi des arènes. <laughs> ñaata nit daa daan ñu fi war ñu daanoo ñu bari bëgg nekk roi de ci ponkal yi bëgg nekk roi ah. da ngaa daan bàll daanoo ëmb daanoo giri ah. daanoo bombardier <laughs> daanoo euh, Lac de Guiers ah. carrière mel noonu carrière ma moom mel noonu mais roi des arènes dañ ko jël teg fee ñu ne grand combat Modou Lo Ama c'est tout. papa ci maa gën a bëgg ci yéen. oto nii la. sa